والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم الجحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم آباؤهم فهم قافلون لقد حق ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu yëkkati kàddu yu yoo xam ne kàddu yu ndigal la jóge ci sëriñ Abdul Karim jëm ci doomam ji di sëñ Maam nga xam ne moom moo woote bis bi ne sëriñ bi nag wax ji du gudd ay seede lay doon ay seede lay doon ak ak ay tegtal. seere si bi ci jiitu. waajur la. sëriñ bi waajuram la. bu ñëw ci waajur la bu ñëw ci doomam. waajur la bu ñëw ci doomam. ci bisam. xam na ni kon. nee na xam na ni kon. tànk yi ko tànk yi nga xam ne moo ko yëkkati. doom jooju kon doom juñ nawloo la. li tax ñuy nawloo ko itam. bis bii ci la bokk. bis beneen bi ci des. nga xam ne moom la bokk yi nga xam ne noonu la bokk yi wuysee tey jii. ñuy ay parents d'élèves. ñi nga xam ne ñooy ñooy parents d'élèves yi. Serigne Abdou Karim dafa bokk ci boppam dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooy waajuru élèves yi. ndax doomam. ndax doomam. fii la jàngee alxuraan. fii la jàngee alxuraan. ba mokkal ko. ba mokkal ko. bind ba bind na kaamil. bëggoon koo joxe fii léegi sax. la ko bëggoon a joxe fii Serigne Serigne bi. Serigne bi dafa bi moo waxaat sëñ maam Baara. na ko indi ca kër ga. na ko indi ba ca ca kër ga. ndax ku def loolu ci sa doom. ndax ku def loolu ci sa doom. dafa am lu war sa diggante ak moom. dafa am loo xam ne dana war sa diggante ak moom. ci wàllu teraanga. ci wàllu teraanga. ak wàllu ñaan. ak wàllu ñaan. kon sëriñ bi nee na. mboolem ku fi sa doom nekk. mboolem ku sa xel dal. na sa am xel dal. li daal war a seen xel. li war a dalal seen xel. bu fekkoon ni daara ji. su fekkoon ni daara ji. tënkuwul ci dëgg-dëggi daara. tënkuwul ci dëgg-dëggi daara. du fi indi doomam. du fi indi doomam. ndax maam Baara mag lay nekk ci doomam. ndax maam Baara mag la ci doomam. waaye indiwu ko fi. waaye indiwu ko fi. ngir rakkam la. ndax rakkam la. da ko fee indi. da ko fee indi. ngir taxawaay bi muy taxaw. ngir taxawaay bi muy taxaw. ci kuy mu mat sëkk nag. di nuyu itam. waa raabita bi nga xam ni. waa raabita bi nga xam ni. ñoo ko maam Baara. ñoo ko maam ñoo bokk bis bi. ñoo bokk bis bi. lépp lu ci war maam lépp loo xam ne war na ci maam Baara. maam defu ci dara. maam Baara nee defu ci dara. ñoom El Hadj Ndiaye Cheikh bi ñoom El Hadj Ndiaye Cheikh ak ñi mu ko bokkal. ak ñi mu ko bokkal. ñoo ànd defar bis bi. ñoo ànd defar bi. ba mu mel nii. ba mu mel nii. kon nag mi ngi leen di sant bu baax. nee na kon nag mi ngi leen di sant bu baax. ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves yi. ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves yi. seen xel mën naa dalaat. seen xel mën naa dalaat. ndax gone fu mu nekk ndax gone fu mu nekk. Euh, santé da cee am solo. santé am na ci solo. te Maam Baara wane na ni. te Maam Baara wane na ni. li fi gone yi nekk. microbe de pël li fi gone yi nekk. ki nga xam ni moom moo yilif gox bi ci wàllu santé. ki nga xam ni moo yilif gox bi ci wàllu santé. muy docteur Fall. muy docteur Fall. mi ngi nii toog. mi ngi nii toog. moom moo koy jàpp moo koy jàppale. moom moo koy jàppale. ci gone yi ci paj mi. ci gone yi ci paj mi. kon docteur. kon docteur. kon docteur. kon docteur. sëriñ bi nee na mi ngi lay sant. sëriñ bi nee na mi ngi lay sant. ngay jëf. ci jëf jooju nga xam ne yaa ngi koy jëf. da ngaa yaakaar ni maam Baara nga koy defal. nee na da ngaa defee ni maam Baara nga koy defal. ndax waaye nag adduna nga koy defal. waaye nag adduna sëpp rek mu ci boo ci faj. xamoo lu muy nekk ëllëg. xamoo lu muy doon bu ëllëgee. te bu boobaa. te su boobaa. lu mën a génn ca. sa loxo nag ñu ngi lay sant ci loolu. nee na kon nag ñu ngi lay sant baax ci loolu. sëriñ bi nee ñaanal ñi ngi ñaanal ñi nga xamni ño mokal tay ñi nga xamni ño mokal tay yalla mana nañ mëna a jëriñoo li ñu mokkal nañ mëna liñ mokal ñi fi nekk di ko micro bi doxal de ñi fi nekk di ko ñi fi nekk di ko micro yalla na yalla ubbi seeni deun yalla na yalla ubbi seeni ba alxuraan ji ba alxuraan ji mën cee dugg ñi ngi sant ñi ngi sant itam bokkam yi mbokkal Serigne Touba bokkam yi mbokkal Serigne Touba dañ fekk leen fi ñom ñep suñ tuddee Serigne Cheikh Bara Serigne Abdoul Karim day daal di yóbbu mboolem mbokk yi yëpp nee na kon Serigne bi nee na ñi ngi sant bu baax di gërëm itam ñi nga xam ni ñoo doyloo Maam Baara ba jox ko seeni doom nee na ñooñu nañu xam ni sëriñ bi ni muy sàmmee Serigne Saliou doomam ji fi nekk noonu lay sàmmee mboolem njaboot gi yëpp neena ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp di wax alaykum wa rahmatullah jërëjëfati Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ñi ngi ñaanal serigne muntaha mu yagg fi lol te wër serigne Abdou Karim Mbacke mi tok ñi ngi koy ñaanal tamit mu euh ndax limi bëgg liggéey serigne Touba mu mën ko àggal man nak ñaari kaddu rek lay yëkëti moy kaddu ciant ak ngeureum ndax euh, mam barami dafa nek ci ndigal ndigal bi moy jangale alxuraan fexé ba xalé yi mokal loolu nag mi ngi ci euh, mi ngi ci ndigalu Serigne Touba kon nag moom euh, damay seere fii mbokkam yi fi toog yëpp nga xam ne moom mi ngi ci yoonu yoonu Sëñ Touba kon nag ñun saa su ne dañ koy ñaanal man nag as ndongo rek laa bu fi ñëw yaakaar Sëñ Touba kon su ma gisee kuy liggéeyal Sëñ Touba dama ciy taxaw xar sama tàng tubay sëñ Sidi mi toog yàgg nañ jëflante ndaamaatu laa nekkoon waaye sëñ bi moo ma indi fii donc yokk. op fii ñuy wax ne hôpital Ndiaye léegi dañ ko def centre de santé indi fi ab docteur muy man kon man ci fii laa bokk te maam baaram yi lépp lu mu woote kenn du ma si jiitu ndax mi ngi ci ndëgalu Serigne Touba te ñi ngi koy ñaanal Serigne Touba taxawu ko may ko kàttan ba fi mu bëgg yóbbu yëf yi mu àgg fa ndax li muy def nii lii la sëriñ Touba wax kon maa ngi koy seere si kanamu sëñ Abdou Karim te sëñ maam baaram yi mi ngi ci yoon te ñu ngi koy ñaanal ngërëmal Serigne Touba. man nak sama kaddu bu bugguma mu yag ndax kaddu tiant rek la di ñaanal jangal kat yi fi ne yalla dimbali len ndax ñoomit seen yef mi ngi ci don di ñaanal ñep ñi fi fekke bés bi seigne Touba def tawfiq de seigne Abdou Karim mi tok ñu ñaanal ko mu yag fi loolu barke seigne Touba jere jef jere jef mu nekk dana fi indi tan jébbal daara yegu ko tamit da koy def ngir yalla jëmmi seigne Touba sab taalibe la ñu tuddee ko. sëñ Modou Baara mu nekk fi ñu wutaloon ko diplôme d'honneur bi yaay suñu baay di suñu sëriñ di sëñ Baara te yaakaarut ku dul yow defuñ ko nag ngir lenn ci moom waaye nag képp koo xam ne yaa ngi ci dara kala cay jàppale war nga koo sant war nga koo gërëm moo tax ñu jox ko diplôme d'honneur bi pour sëñ bi jot ñu ko sëñ bisimilah sëñ si بالمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإن يهمل للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمل يعينني على الصواب سمل بجاه خير خلقني هو الجيد أرسل خير العالمين أحد نعم الإله الأكرم وحد لله عم شكور يخلد دوام ممكن نافع ينفرد لو كتابي حامدا على الذي بالجنان أقصد هب لي كتابك وسوق ما يخلد بشري لي أكرما أوحد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بصلاة صمد لنا بهن خاد هدى ورشدوا بي على رب الورى نحتمل خاد لنا القرآن ما لا نجد في غيره نعم الكتاب نفعل رد مكارم لي لا ترد باق بي المنى يخلد آياته إلى سوانا لا تطرد بلا امتحان قبل امتحان من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصد في أبد بإنجنا نرد نفى لغيرنا به محمد ما سانا وخلفاه سمد جميل تسليم يلوم المدد بي على ندب أمين يهمد بركة حسيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحدو رنا سلاما بسنا يجدد لقائد هو المتاه الأمجد رنا سلاما بسنا يجدد لقائد هو المتاه الأمجد